ñu ngi nuyu ñëpp ñu ñuy dégg di nuyu population région de Thiès département de Tivaouane commune de Mérina Dakhar maa ngi wax ci tout chef de village yi man la Oumar Diakhaté secrétaire général des chefs de village ah di sant yàlla bu baax ci initiative bii nga xamante ni préfet jël na ko ci affaire tali bi parce que ñu chef de village dañuy sant bu baax di gërëm su préfet parce que moom dafa indaale benn arñe boo xamante ni ci dëkk bi ñu ñëpp fii képp kuy chef de village wala nga nekk fi responsable ci dëkk bi gis nga ci sa bopp ñëpp la tijjil buntam jël téléphone am aussi disponible pour tout le monde disponible saa woo ko wooyee mu wuy la li nga bëgg incha allah boo ko waxee dina saafara kon moom dañ koy ñaanal yàlla moom ci boppam mu yàgg fi te wér te dañ ko doon jooy mais am nañ ko. di ñaanal aussi population bi di ñaanal commune bi yépp madame le maire mi ngi nii taw taxaw moom it xalaat bi mu joxe ci initiative préfet bi dañ koy rafetlu monsieur le maire Modou Fall aussi mi ngi nii toog adjoint moom tamit dafa disponible pour population bi tous les chefs de village yi nekk ci commune Mérina ñu ngi sant bu baax di gërëm initiative bi di gërëm préfet di gërëm monsieur le maire di gërëm commandant de brigade bi man chaque fois dama koy woo téléphone ci situation yoo xam ne sax des fois doo yëg ba tout récemment ku fële ndukura am na benn xale boo xam ne benn xale pël boo xamante ni gars ñëpp ko xam sama kanam lañ ko jàppee pël yi jàpp bu kooray maa def intervention woo commandant mu jël si ko foofu hmm? te koo xam dafa ci sama kanam ni la jiitale ay béy jàmbur du ko yóbbu kon ñooñu gis ko maa woo commandant mu jël si ko foofu am intervention yi tamit ñun chef de village dañ koy soxla ci yu mel nii moo tax kon ñu ngi sant bu baax di gërëm ñëpp di gërëm monsieur le maire di gërëm préfet di gërëm commandant de brigade yi fi nek yépp ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm jëmale ci tali bi ci ginnaw amon na njàqare. ginnaw ndaje hmm. bi ndax yaakaar nga ni amna na yeneen yaakaar yu waaw suñu xel dafa dal li ñuy génnee fi tay ñun suñu xel dafa dal parce que ñun dañuy gëna mobiliser suñu population aussi parce que xalé yi tamit meron nañu mer go xamanteni bëggoon nañ fi def lo xamanteni du neex kilifa yi mais nak yalla dimbali nañu bañu and ak seen

te it ñu dimbali ñu te it monsieur le préfet dama fàtte ci benn affaire tamit ci réunion bi bëggoon naa ko laaj tamit ñi nga xamante ni aussi mooy borom tool yi nga xamante ni aussi déviation bi dafa jaar ay impact la ñoom ñu ñuy def ak euh, kii bi soit ñoom dama xamul quoi parce que ñoom nañ leen empêché pour ñu bay foofu en plus dama xamul ci dañ koy réclamer tout le temps dañ ñëw ci man di ma réclamer suñu tool yi nga xam déviation bi dafa jaar nan nañuy def. man leen incha allah loolu moom xam naa dañ ci waxtaan ak kilifa yi yooyu yëpp aussi dañ koy jànkonte ak moom foofu. jërëjëf merci. Acting adjointe au maire de la commune de Mérina Dakhar ñu représenté fii les femmes la commune de Mérina Dakhar. voilà euh, ci tali bi fekkoon na jigéen jaam taxawaay nan nga gisee réunion bi ak jàngat. waaw réunion bi nag xanaa nag ñu am ci rek nag euh, liñ ci kontaan daal ndaxte li ñu fi gis tey dafa dal xel. ñuy remercier le sous-préfet ñuy remercier le sous-préfet de l'arrondissement de Médina Dakhar ndax tey lii mu oote nii tey la yaakaar naa ni ñun ñëpp la ko defal population Kajoor yëpp la ko defal ndax tali bi ak euh, ni mu mel ak contexte bi ñun ñëpp suñu xol jógoon na ndax ñun ñooy yaay yi ñoo nekk ci kër yi ñoo ñoo jur njaboot gi kon demoon nañ tey ñun ba suñu xol ñun ñëpp jóg ndax am na loo xamante ni préparé woon nañ ko pour def ko jëmale ko ci tali bi wante li ñu fi dégg tey dal na xel xanaa kay li ñuy wax rek di ñaax entreprise bi mu gën a góor góorlu ci liggéey bi def ci kemtalaay kàttanam ba rassurer population bi ndax nag dañ ne réeroo amul ñàkk waxtaan rek moo am te li xewoon lépp ñàkkoon waxtaan rek moo am mais tey bi ñu demee tey ba waxtaan ak ñoom ñoom am na lu ñu wax dégg nañ ko ñun aussi am na lu ñu leen wax ñoom dégg nañ ko ñu ngi toog nag di seetaan may leen nag dañ leen di may nag ñu liggéey wax dëgg yàlla ndaxte tamit nag li ñu fiy def ñun ñi lañ koy defal ndax ñoom tey su tali bi pare mën nañ fi sax bañ a ci jaar kon ñun ñi nga xamante ne ñun ñoo fi dëkk ñun ñoo fiy jaar ñun la fi suñu njaboot di jaar kon dañuy ñaan rek yàlla lépp loo xamante ni tënk nañ ko fii rek ñu am ci résultat yoo xamante ne nii rek yu ñu yoo xamante ni yu sedd xol lay doon lu dal lay doon loolu rek ñuy ñaan yàlla. Euh, njaboot waaw li ñuy dénk njaboot yi rek mooy njaboot gi tamit nag dinañ leen dénk ndaxte am na ci ñoo xamante ne muy chauffeur yi jaar ci tali bi ñi xamanteni ñoy yore auto yi di fi jaar ñom tam am nañ ci part de responsabilité ndax ñom tamit ni ñi dawe ci tali yi jaaduwul te tey soo leen waxon tay ñu sànni la loxo ñi nga xamanteni dañuy dugg toujours ci auto yi ni ñi dawe ci tali bi ñun xam nañu jaadu man toujours dama naan taxaw leen man ma wàcc ndax té nak ni ñi dawe jaaduwul am na ci nak accident yi nak mi ngi am ci tali bi waye ñom tamit li ci bari nak ñom la chauffeur yi la entreprise da daal li ñu leen di ñaanal li ñu leen di wax rek di leen ko ñaan ñun tamit di leen ci ñaaxaat ci lool rek mo ñu gën gor góorgóorlu ci liggéey bi nu ñu doon góorgóorlu rek ñoom nañ ko yokk naam ñi ngi doon liggéey waaye nag nañ yokk lu doon liggéey loolu rek lañ leen di digal